di oo ñëpp ku ne fi nga ne te eh, nga doon sénégalais nga am eh, at yi nga xam ne ñi ngi war war ngaa tànn ah, war ngaa mën a tànn nga góorgóorlu yow itam nga eh, jël sa sa sa wareef sa wareef te mëttali ko bu baax a baax maanaam dem itam ni ku ne tànn ñi nga xam ne ñi ñoom nga bëgg pour ñu jiite mbaa ñu dimbali ñu ci jiite réew mi liggéeyam réew mi kon boog may o ñëpp ñëpp vraiment surtout jeunes yi vraiment ñu góor góorgóorlu ñu góorgóorlu dégg nañ ko eh, sànq nan la moyenne depuis des années depuis les années quatre-vingt jusqu'à présent yegg du ñu yegg sax cinquante pour cent eh, l'électorat kon boog war nañoo góorgóorlu vraiment eh, Sénégalais yi dañoo bare wax dañoo bare wax mais bu jot waxtu jotee duñu duñu du ñu jëf kon waxtu waxtu jot na nañu góorlu itam di jëf bàyyi wax ji rek wax taxul réew mi jëm kanam dañu góor góorlu jëf tuuti jëf tuuti ndax suñu Sénégal mën a rafet mën a neex te ñëpp bokk ko ànd di ko liggéey.